boroom al axdari wa abdurahman mi ngi ñuy bëgg a jàngal ne julli ci boppam audience la boo xam ne jaamab yàlla bi dafa ko am ak boroomam looloo waraloon mu préparé woon audience bi ak laab fexe ba laabal yaramam fexe tamit ba laabal ay yëreem fexe fexe ba lépp loo xam ne nii mi ngi ci moom dafa laab ba mu demee nag ba war a jàkkaarloog boromam nag toujours su nit ki amee audience yi ak kilifa la muy njëkk a def mooy sant ko ci liggéeyam li muy liggéey ci réew mi mu taxaw wan ko ne yow buur bi ñu ngi lay sant te da nga koy yelloo ndax kat laaw projet yi nga xam ne taxawal nga ko ci réew mi ñëpp a ngi koy yëg ci seen liggéey ya moo taxoon mu commencé woon ko ci bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi lay sant ku bëri njaboot nga mais daal fàttewuloo sa njaboot ci kenn kenn ku ci nekk yor nga ko sa loxo mu jët mu jot say xéewal ñaareel ba xam naa tamit ni nga bëree njaboot ci àdduna te fàttewoo kenn dafay gën a daral suñu xel ne bu àllaaxiraa tamit doo fàtte kenn moo tax mu indil ko rahmaani rahim mu jaalir bi ku joxoñaat boromam wan ko ne ko nag yow buur bi rek yaa jaral sànni carte ndax buur boo fi sànnil karta bu dul yow dana mas a folleeku yow nag sa nguur dafa ndar kepp àdduna ak àllaaxira du fi jug mukk moo tax mu ne ko maliki yow nit diin moo tax tamit gannaaw lu mu tegal ko ci tamit ne ko yow rekk daal yaa jara toroxlul di daw ki sa gannaaw ndax kuy toroxlu di daw ki sa gannaaw doo ko fàtte yow tamit rekk yaa jara ànd ak kuy wut parti daal parti boo xam ne dana ca mën a jëriñu na ñëw jéem a maanaam inscrit ci sa parti bi looloo waral mu ne ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yépp nag bi mu ko waxee yàlla mi mu war a xam ne moom la giseek audience borom bi ne ko nag sa wax rafet na sant gi ma sant rafet na maa ngi lay gërëm ci sa taxawaay yow tamit ci itte ji nga am ak oyof gi ba ñëw seet si ma léegi nag li la des daal mooy wax ma li la tax a jug léegi nag waaw léegi comme buur bi jaam bi def na tamhid nag ci lay commencé nag di wax ne ko liñ bëgg daal mooy ihdina siraatal mustaqim lenn rek moo ma tax a jóg dama bëgg rek nga may ma njub tey ñëwuma ngir nga signal ma projet bu may war a taxawal ñëwuma ngir ñaan si la xaalis ñëwuma tamit ngir nga fal ma ndomba tànk goo may takkal wala goo may dëxal tey daal genn ndomba tànk rek moo ma tax a jëkkati mooy nga boole ma ca raam ñu njub ña kon gis nga ko njub lu am solo la koo xas ñàkk amoo dara mais ku ko xas am tamit ñàkkuloo dara looloo waral nag yonent bi di wax ne yàlla wax na ci hadisul qudsi yu ne maag suma jaam bi ñoo seddoo fatiha genn wàll gi man yàlla maa ko moom te mooy li ko dara ci bismillahi rahmaani rahim ba ci wa iyyaka nasta'in li ci des lépp nag muy ihdina siraatal mustaqim ba ca walla wala daalin kooku jàmbee ko moom moo waral bi mu giseeg boromam bi ba mu wax ko lam bëgg borom bi léegi nangul ko ko jàllar bi ko nag ne ko kon nag baax na maa ngi dem amin di nangu li nga xam ne yaa yaa ma ko jox kon nag julli googu nag di e, mbir moo xam ne day jokkale diggante jaam bi ak boroomam jàllar bi ko timit di audience bu mel noonu nekk timit jaamu yàlla gi gën a foor ci jaamu yàlla yi gën a tudd baatu seede bi julli googu duwut këpp këppal rek ak jàng faatiha ku saar ak sëlmal mais dafa am secret am leer gu muy def ci sa xol leer googu nag tànk yëguloo ko rek mel nga ni julli nga waaye julliwuloo leer googu muy def ci xol nag te am ñu koy am am ñu julli te amuñ ko kooku moo tax nag borom téere bi wax nii ne li salaati aji nekk la ñeexal julli nóorun leer azimun gu màgg tasruqu dana jolli bihi ci leer googu qulubul musallina xoli way julli ña yi ñay julli tey jullee na yàlla bëggee bañ a jullee nañ bëggee ñoom ñoom ñooy yëg leer ak julli goo xam ne ak ab projecteur bu mag lay doon moom julli gi dana ko taxal ci seen xol yi ñoom ñiy julli te nag leer googu nag bu xasee taal ci sa xol bi rek lépp lu ca nekkoon dafa cay génn lu dul yàlla rek a cay des su boobaa ay caaxaan dafa cay génn ay saatagaay dafa cay génn lu mel ni am poot dafa cay génn lu mel ni gis sa bopp ak rëy dafa cay génn lu mel ni iñaan ak ngistal dafa cay génn lu mel ni ndéggtal ak ya ca aju yëpp day génn ca xol ba ndax lu ko ëpp doole moo ñëw seet ko moo tax nag mu ne yombut looloo waral wala yenaaluhoo du am leer googu illa al xaashiuuna ndare way ragal yàlla ñi ñoo xam ne ci misaal dañoo ragal ragal yàlla ba bu ñuy tudd yàlla mbaa ñu tudd ko seen kanam sax buy seen ronkañ yay sotteeku duñ ko yëg bu ñuy julli tamit dootuñ yëgati lu dul yàlla rekk lañuy ñuy yëg daloon na benn nitu yàlla bu baax amee woon feebar muy jabet ñi war a dog tànk ba doom ji ne leen li leen ci mën a musal daal ngeen mën koo dagg te du ko yëg dangeen di bàyyi ba mu taxawal di julli soo amee ab rakaa ba toog di sujjóot noonu rek wala ngi bala bu amee ñaar rakka ba toog di taaya rek neen profitoo daggu tànk ba du ko yëg waaye ci noonu lañ mujjee dog tànk bi mu foog ne moom tànk baa nga fa ba muy jug ne ma ngay taxaw rek mujj daanu waaye ba mu taxawee ci biir julli ji moom yëgul lu dul yàlla loolu nag mooy dayoob xusooxu lu jafe la moo tax yonentu bi sallallahu alayhi wasallam bu taxawalaan julli ñu ne dënn ba dafay bax ba mel ni kaw diir guy togg na muy baxee di di di maanaam di yëngatu ngay dégg bur ba moo tax mu ne nag wala yanaaluhu du am leer googu illal xaashiuna ndare way ragal yàlla ñi melokaanoo ñaari melokaan yooyu ma tuddal la comme nag julli dafa làmboo leer gu màgg googu di projecteur boo xam ne day taal xoli way julli ña di ca génnee lu ca bokkut lu ne di ca desal la ca bokk te way ragal yàlla yi di ko am kon nag man borom téere bi maa ngi lay wax ne kon yow jullit bi may déglu fa ida atayta boo dikkalee ila salaati jëm ci julli waaye waaye na fexe ba fa fa fariix na wéetal xalbaka sa xol bi mina duniyaa ci àdduna wama ak lépp lu nekk ci àdduna kon nag boo ñëwatee ba ñëwal julli fexeel ba sa xol bi nga génn ci léppi àdduna ak li àdduna ëmb jëlal sa xol bi fàtte kër yi nga am jëlal sa xol bi nga fa fàtte ci bi maanaam magasin yi nga am ak marchandise mi nga tiim waaye tamit ba nga demee bay julli fàtteel soxna yaag doom yaag sët ya ba nga demee bay julli tamit lépp lu dul yàlla bul ko fat ci sa xol bi moo tax mu ne la kon nag fa ida atayta boo dikkalee ila salaati jëm ci julli fa fariig na nga wéetal xalbaka sa xol bi min ad-dunya ci àdduna wa ma fiha ak lépp lu nekk ci àdduna kon nga ne ko nu may def mu ne wastaxil bi mu raqabati mawlaaka ci fugluwanteeg sa borom allazi borom bi nga xam ne tu salli yaa ngiy julli li waj yi ngir jëmmam ja nga mel ni yaa ngi def ak moom fuglu muraqabatu nag di fuglu ñaari xaaj la dafa am muraqabatul kubra am lu ñuy tuddee muraqabatu suxra muraqabatul kubra mooy nga rafetal li la yàlla sant ba mel ni yow yaa ngi jàkkaarlook yàlla mi la ko sant boo ca lottee nag nga rafetal li la yàlla sant ba jàpp ne ci sa xol bi yàllaa ngi jàkkaarloog yow mi nga xam ne yow lañ ko sant te kuñ sa tab liggéey nag sa patron bi jàkkaarloog yow ne la li ngay def maa ngi koy xool yaakaar naa da nga gën a teeyal jëf ja gën koo rafetal kooku la ñu tuddee muraqabatu suxra beneen bi mooy muraqabatul kubra moom la yonentu yàlla muhammad tënk ci benn xadis ne an taabudallaha ka annaka taraahu kooku mooy muraqabatul kubra fa in lam takun taraaxu fa innahu yaraaka kooku nag mooy muraqabatu suxra kon nag booy julli fexeel ba ñaari muraqaba yi bum la ndax mooy tax nga mën a teewlu julli ga man koo sellal man koo baaxal moo tax mu ne fa ida atayta boo dikkalee ila salaati jëm ci julli fa fariq na nga wéetal xalbaka sa xol mi ne duniyaa ci àdduna oma fi ak lépp nekk ci àdduna waaye wastaxil na nga soxlawoo bi muraqabati mawlaaka ci fugluwanteeg sa borom lazi borom ba nga xam ne tu salli yaa ngi julli li wajhihi ngir jëmam jë waataqid na nga fas ki sa xol ne anna salaata nag julli xusuun ragal yàlla la wa tawaaduun ak toroxlu lillaahi ñeel yàlla kon nag fas ci sa xol bii ne julli du dara lu dul toroxlul yàlla subhaanahu tudd na ma ak sellam yaa ngi koy toroxluloo bi qiyaami ca taxawaay ba nga fas ne taxawaay bii ma taxaw di kabaar kabaarul xarmal jàllar ku di jàng fatiha saar bu dee ràkka yu mujjee la ma jàng ca fatiha rek dara taxut ma def ko lu dul rek fas ak toroxlul yàlla war rukoo yi rukoo ba timit nga jàllar ku sëgg jël sa ñaari loxo yi teg ko ci sa ñaari bët wóom yi loolu xam nga ne tamit nga fas keneen lii dara taxut ma def ko lu dul toroxlul yàlla wa sujjóot ak sujjóot ba tamit nga fas teg toroxlu ne sama jëbii di xar-xaram bi ma gën a fonk ma jàllal bi ko ne ko ràpp ci suuf ngir suma borom moom mooy yàlla ma defal ko ko waaye dama ko ko defal tamit ngir toroxlul ko wa islaalun ak màggal wa taxzimun ba tey ak màggal la woo ñaal yàlla nga fas màggal ga bi takbiiri ca kàbbaare wa tasbihi ak sàbbaale wa zikri rek maanaam sikkar ga tudd yàlla goo cay def na nga ca fas màggal yàlla kàbbaar goo cay def na nga fas màggal yàlla sàbbaal ngay def ca rukkoo ya ak ca sujjóot ya yépp tamit nga fas ca maanaam màggal yàlla kon julli ñaari tànk la taxawee tànk bu njëkk bi mooy maanaam toroxlu ak màggal toroxlu ga taxawaay yaa ko moom ak rukkoo ak sujjóot ba màggal ga maanaam kabaar yaa ko moom ak sabaar yaa njàng ma su ko defee na yooyu yëpp nag nga jàpp ci fas ci ak torox lu waaye duwul nag duwul rek ne julli gi mooy diggante taxawaay baag rukkoo baag sujjóot ba te fekk loola amuloo loo ca yëkk ba tey mu ne la maa ngi lay ñaan fa xaafis na nga waxtu ala salaatika ci sa julli fa innaha naka moom julli moom azamul ibaadaat yi moo gën a màgg ci xeeti jaamu yàlla yi ñuy jaamu yàlla yëpp jullee gën a màgg xoor weeru koor moo waral sax julli dugal na xoor ndax xoor du dara lu dul bàyyi lekk bay naan bàyyi jotee fi fajar xaree ba fi nga jant bi soxee moo waral bi ngay julli lekkoo naanoo joteekoo fi nga kàbbaaree xarmal ba fi nga sëlmalee kàbbaar xarmal ba nekk xaru fajar sëlmal nga nekk maanaam jant bu so ci yow moo gën a foor xaj moo waral dugal na ko ndax alxajju li muy tekki ci làngu arab luxatan mooy alqasdu mais charan nag mooy alqasdu ila baytillahi alxarami li adaa il faridati mooy jublu néegab yàlla bu sell ba di kaabatul musharrafa ngir jooxe farata ji ñuy tuddee xaj yow nag bi nga xamee ne yaa ngi julli jubluwaay yëpp da nga jël jubluwaayu kaaba ga jublu ko ngir jooxe farata ju gën a foor xaj muy ak julli moo tax alquran ne la wa haytuma kuntum fa walloo wujuhakum shatrahu kon julli dugal na xaj dugal na tamit bi naa joxe asaka asaka du dara lu dul lu mat ñaar fukki xeet ci yu ñuy bay ak li ñu bayut la ñuy génnee asaka jagleel ko juróom-ñetti nit juróom-ñetti ya mooy innama sadaqaatu lil fuqara ba ca laaya ja yow nag yëkkati nga asaka ju gën a fool alal te mooy joxe jàmmu ndax alal bala nga ko tal day fekk jàmmu nekk fa waaye kenn mënta alaloo alal te fekk jàmmu nekkut fa yow na nga yëkkati jàmm muy sa asaka nga sotti ko jaami yàlla yépp ñi la jiitu woon di julli ñi nga ñi ngay dund ndoor ñuy julli ñuy dund sa gannaaw timit di julli ba bay àddunay tukkee jox nga leen asaka ci assalaamu alayna wa ala ibadillahi kon jooju asaka moo gën a sakkan ñi ko jox tamit ñoo gën a sakkan jooju asaka tamit moo gën a foor te moo gën a tedd mu waral kon julli moo gën a màgg ci xeeti jàmm yàlla yépp gannaaw tudd baatu seede bi ndax wala zikrullaahi akbar waaye gis nga ko sa baatu seede bi moom bañ na ko sax ba dugg na ci biir julli ndax kuy julli da nga liqaam te ku liqaam da nga wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kuy julli tamit da nga taaya kuy taaya da nga wax loolu naka noonu kuy julli danga nga kàbbaar allahu akbar boo ko farañ fàncee mooy tekki rek laa ilaha illa allah kon nag jullee ngoog ak màggaayam nga bu nit dee bañ suul ko ci biir bàmmeelam ña ko suuloon dox juróom-ñaari jéego danañ dekkil ko la ñuy njëkk a régler ci moom mooy julli su baaxee lépp baax donte am na lu bon su bonee lépp bon donte am na lu baax neex naa misaal ci ji jamono jamono ji ku fi tukki jëm Italie wala nga jëm Espagne wala nga bëgg a dem Amérique booy wàcc ci aéroport ba li ñuy njëkk a ci yow mooy sa visa bi ndax valable na wala déet bu visa bi xasee valable moom faw nga dugg ci réew ma waaye bu visa bi baaxut boo amoon téeméeri identité du la tere dëpp soo amoon junneey passeport dina tere fanaan ci sa réew kon nag julli mooy visa wu àllaaxira su xasee baax dootuñ seetati dante yi tëye dootuñ seetati kayitu juddu ya ndax duggaale na ci biir li visa bi moo ñu xamal ne lii dugalaal na leen moo tax mu nekkoon tamit nag walla taturiki bul bàyyi seytaana seytaana yalabu muy foxe bi qalbika sa xol bi bu ko bàyyi muy foxe sa xol ndax julli dafa foor fexeel ba leeri bànneexi julli dugg ci sa xol bi te bu ca xasee dugg rek seytaane dootul amati place ndax kat seytaane dënn yi mooy biroom saa yu xëyee ni nit ñi seeti seen biro ya moom nag biroom mooy mooy dënnu nit ñi su ko defee nag ca biir dënn bay biroom fa lay taabu taabalam toog fa fexe nag bay jéem a sàcc euh, secret bi nekk ci sa xol bi te mooy sa gëm yàlla gi ak lu baax li nga xam ne ma ngi ca xol ba su ko defee nag moo waral nga njëkk a war a xeex ak seytaane ba du am maanaam lu mu mën a sàcc ci sa xol bi dara moo tax mu ne alxuraan tuddee na dënnam yi mooy bureau moo tax mu ne fii su dóorin naas yi yu was fisu fii su dóori naas yi foofu lay nekk jax-jaxal moo xam seytaane sa minal jinnati laala moom jinne la wa naas yi wala muy nit su ko defee nag kon loolu lu jar a bàyyi xel la ba nga xam ne du am maanaam fu mu mën a toog bay am maanaam lu muy mën a sàcc te nag kon boo bàyyi seytaane muy jax jaxal sa xol bi ba amuloo noo teewloo julli ga di xelaat mbiram àddunaak sa mbiram soxna yaag doom yaag magasin yàgg ya ci aju ba yow sa julli gi teewlu ca dara formalité bi rek nga indi waaye caf nga ak julli ga ñëwut su boobaa ngaa sonn waaye defoo dara moo waraloon yonent bi sallallahu alayhi daan wax ne laysa lil abdi min salaatihi illa ma aqal minha mu ne jaam bi daal xamul dara ca julleem nga lu dul li nga xam ne moom la ca xelu mooy lam ca teewlu rek teewlu ca màggaay yàlla gaag fooraay ga teew lu ca toroxlu gaag ya ca aju lu rek la am ca julleem ga la ca des nag moom amu ca dara kon nag bul bàyyi seytaane muy foxee sa xol bi waaye ba ko defee eh, wala tutriki bul bàyyi seytaane seytaane yalab muy foxee bi qalbika sa xol bi wa yasxaluka mu lay soxla xooloo an salaatika wali sa julli gi xataa sax ba muy effacé xalbaka sa xol bi wa yaxrimaka mu lay xeeñ min lëzzati anwaari salaati ci bànneexu leeri julli kon bul bàyyi seytaane muy foye sa xol bul bàyyi seytaane mu lay soxlaloo walis sa julli gi nga teewlu ko ba mujj nag bu la soxlaaloo ba teewlootoo day mujj effacé sa xol bi leer ga ca nekkoon mu sàcc ko dootoo amati genn leer ci sa xol su ko defee nag su boobaa nag yow da ngay julli fekk julliwuloo moo tax nag mu ne la kon fa alayka na nga taqoo bi dawaamil xusuuci na nga taqoo ragal yàlla ci sa julli gi fiiha na nga taqoo ragal yàlla fiiha ki julli ga fa innaha naka moom julli nag ku ko def na ko yàlla bëggee tanha day tere anil faxsaay ci lépp lu ñaaw wal munkari ak lépp luñ xaraamal luñ fakk loo xam ne bëggoo kenn gis ko waaye loolu nag yaa ngi koy mën a xamee bi sababi xusuuci ci sababu ragal yàlla fiiha ki julli ga julli ku ko def dëgg dëgg dëgg dëgg ci na ko yàlla bëggee julli ka dana dem ba dàq ak rëy ci sa xol bi dana dem ba dàq ak iñaan ci sa xol bi dana dem ba dàq ak parparloo ci sa xol bi dana dem ba dàq mbooleem jikko yuñ mu di ci sa xol bi jàlla di ko def ci jikko yuñ gërëm yi moo waral ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na benn xaleel waxambaane bu daan julli ca gannaawam ca jàkkaam ju tedd ja ca a munawara waaye xalel bi yàlla seytaane moo ko man moomut loxoom lu réer ca dëkk ba ñaareel moo ko sàcc ñooña ñëw ci yonantu bi kalaame ne ko xale bii di julli sa gannaaw de ku mën a julli la du tarde wenn waxtu waaye lu fi réer moo ko sàcc yonantu bi ne leen bàyyi leen ko muy julli rek nay julli rek julli gi dana ko ko tere waaye yàggu dara waxatuma sàcc waaye luñ fa sàcc sax mooy fexe ba mu feeñ kon nag julli dafa taxaw taxawaayu ordonnance ñun ñi koy def taxaw taxawaayu ay malaat borom bi ñu ko jox taxaw taxawaayu ab médecin buur bu day ni yàlla nag di médecin wu médecin yi bu la bindalee ordonnance ne dee ko jël juróomi fan ci bis bi nga di ko jël te yëguloo ak kene yëguloo ak wér ci sa sa xol bi dafay tekki na yow defoo ko wala nga koo defee ni nga bëggee waaye defuloo ko na ko yàlla bëggee maanaam jëleehuloo ko na koy na la ko yàlla digalee nga jëlee ko ko mais da nga ko jëlee ni nga ko digalee sa bopp ni la ko seytaane digalee su boobaa nag da julli ba dee te doo te doo wér da nga julli te rek wax ñaan nekk ci yow rëy nekk ci ngay sàcc ka fen aka njaaloo ka karta aka maanaam bëgg ay caaxaan ak am po su boobaa tamit day tekki ne julli huloo moo taxoon waykat ba ne tanha anil fahshaai kulla salaatihim wa ila fa salaatuhumul fahshaau julli daal su fekkee mënul laa tere lu bon li kon moom julli mi doon ordonnance dafa mu nit soppeeku jàngoro kon nag nañ bàyyi xel bu baax a baax ci julli yi di ko defee na yàlla bëggee ndax lu bon lu nekk ki ñun julli gi mën ko fee jënee waaye bañ koo defee ñun niñ ko bëggee ndax su boobaa danañ julli te du teree tamit lu bon lépp mu ngi suñ xol te julli dafa ñëw ngir teqali ñoog mbooleem xeeti jàngoro yu bon yi lu jafe la nag jafe gi mu jafe moo tax mu ne la fastain na nga dimbanikoo billaahi ci yàlla ndax nii ma waxee la julli li ko dara ci li salaati nuurun azimun la ca aju ba ci fii wal munkari dëgg-dëgg bi sababil xusuwaay fiiha kenn mënu cee dimbale kenn ku dul yàlla kon dimbali koo xal yàlla mu dimbale la ci julli nga joxe ko nam ko bëggee innahu naka moom yàlla moomu xayru mustaani moo gën ci ku ñuy dimbali ko ku bëgg ku la dimbale demal ci yàlla ndax kooku yàlla dimbale kenn mënatul laa notati kon nag jullee ngoog nuñ koy defee ngoog ak li nga xam ne noonu lañ ko bëggee ñaareeli bunt bi nag